Bienvenue sur Salam bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm waa diaspora bi di ñaanal euh, àdduna bi yëpp di ñaanal kilifa diine yi di ñaanal kilifa aada yi di ñaanal sëñ sëñ taxa Bachir yal na fi yàgg te ñoo ngi doxantu ba ci hôpitaux yi nag di seet malaat yi di leen ñaanal yàlla ekkati leen ñu ngi dem ba ci prison yi di ñaanal ñëpp ñu fa yàlla génn leen ci jàmm ak salaam tey nag waa Salam Vision dañu doxantu woon ñëw fii kër Thione Seck ci magam Ablaye Nar Seck di magam di kilifaam léppam tey nag ñu ñàkk ku rëy muy Thione Ballago Seck muy monument Sénégal ñëpp xam ne ñàkk gi metti na gis na tey nag Salam Vision ñëwoon doxantu ñëwoon seet si magam jii di Ablaye Naar sekk di magam ñu ñëw nag ci biir këram fekk ko fi tey ak njabootam ñu ñëw di ko laaj digganteem ak euh, Thione Ballago Seck lay Naar sekk ñu ngi lay nuyu di la ziar dina la masawoo di bokk ak naqar bi. maa tey nag dañu ñëwoon comme yow yaay kilifa kër gi yow yaa fi bàyyi chef tey dañ ñëwoon di la laaj sa relation ak euh, Thione Ballago ginnaaw bi ngeen bokkee li ngeen bokk yépp ñu lay jox kàddu gi nga nuyoo ba pare doog a dugg ci question yi. waaw asalaamaaleykum ngi sant yàlla di gërëm. borom bi lool ndax lu mu def noonu la lu muy bëgg a def sax noonu la ndax ñun ay jaam lañu waaye ay pion lañu dañuy pousse rek ñuy def donc euh, ñu sant yàlla ci dogal xam ne nangu nañ ko mooy lu metti mooy lu tiis waaye comme ay jullit lañ ñu nañu yàlla mooy buur te lu mu dogal moom sama diggante ak sama nag moom allah diggante rafet la bu neex ndax nit na ma sama gëdd na ma sama loolu moo ci ëpp parce que àdduna mu ngi moom jeexal na mu ngi ku matal dem ku matal ak dem yëf yi la rek ku àgg sa gaal da wàcc par ku àgg sa gaal da wàcc donc moom wàcc na fee jéem ñu ñaan fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jëm yàlla na rëcc lu mu fi doon nekkee ci kàttanu yàlla donc bu baax bu man rekk rakk bu doom yëpp ku ci nekk nekk tey jii sama doom yëpp ku ci nekk ton sec moo la gerte waaw moo la jox li may am lépp ci moom laa koy jëlee yiir ma bëggul ma xiif bëggul ma mar bëggul sama njaboot xiif bëggul sama njaboot mar donc kooku déjà rek loolu rek dafa doy waaw ndax kër gii ñu nekk nii moo ko jënd moom ko jox ma ko ne ma dëkkal ak sa njaboot ma loolu déjà mën ma ko fay comme je dis tout tout temps répétition elle pédagogique mais dinaa koy wax tout temps jël xaalis bari di ma jox ne ma chaque jour dépense sa dépense ngi nii bu jeexee nga wax ma may dund ak sama njaboot kooku nag bu bu dëddoo àdduna dina metti loolu ci man wax dëgg yàlla waaye damay sant yàlla di ndax tax may sant yàlla mooy ñag na boppam ñag na gannaawam ndax avant muy génn àdduna la woo doomam ma toog mu toog doomam di wax rafet moom it nuy Waly Balago Seck mais carrément papa la ko wax maa ngi toog lépp lu la warloo woon ak sama am Ablaye Naar wàcc naa la ko bis ni tey man mii maa ko gàddu loolu la Wally def te moom lay doxal boobu ba léegi ba yi ñëw avant yi di ñëw Wally commencé na loolu jël na jël na maanaam wàcc na papaam ci man donc muy rafet Wally bëgg na ma Wally yërëm na ma Wally xam na ne maay bàyyi donc loolu tamit yi faut ñu leeral ko àdduna ñu xam ne sama doom mu may jàppale sama doom mu sama doom seetaan ma solo tamit nit xam ko ndax dañ naan ndax nit bu baaxee na ko mbokk yi ñu ko wax que bu dul loolu rek Samba alaar ñu euh, ko gërëm sama doom maa ngi di gërëm di gërëm it yaayam ndax li yëpp yaayam la yaayam moo sëyal sama rak ba am ci tey ji lii mu ci am am ci doom yi tekki am doom yu baax am doom yoo xam ne tey yëpp bu ñu waxee ñu déglu leen kooku ndey moo koy def ci doom moom loolu ki ne jur def maa ngi koy sant di ko gërëm moom ndax mosul xam lu dul Thione Seck loolu moom moo ko may lii tey jii donc vraiment maa ngi gërëm Kiné di gërëm ñëpp di gërëm mbokk yëpp mhm. waaw di gërëm mbokk yëpp di gërëm ay ñoom Alioune ñoom Mohamed samay doom ñoom Babacar ñoom Aïcha ñoom moom yi ak Bintu ñëpp maa ngi leen gërëm di sant di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mhm. may leen fan lu gudd te ñu si seen bàyyi fan jërëjëf euh, Ablaye Nar Seck kooku mooy magu Thione Ballago benn question bi nga xamee ne duñ la téye ndaxte fi mu nekk ne amoo jot ndax am na ñeneen ñu la soxla ci bi ci mooy relation bi Thione Seck amoon ak waa Pikine ndax euh, yow relation boobu yow laa koy laaj ndax euh, relation bi rafetoon na wala déet. rafet na lépp rafet fii macha allah Thione moom d'ailleurs am na ñu xam ne fii bëgg nañu wax ci koñ bi sax nee nañ léegi ma boo ñëwee ma yóbbu leen foofu ñu wax. muy maire ku mel ni maire Bintou Mbaye maire Oumy Sall. ñooñu. il faut ñooñu bu ñu la témoigner ci Thione Seck nga xam ne lépp dëgg la koñ bi macha allah lépp macha allah. lépp lu leer la relation cordiale la relation yu rafet wallaay wallaay taala donc amul benn animosité ñoom ñëpp dañ ko bëgg coon Sénégal la ko bëgg waxuma fii récolte bi mais Sénégal la ko bëgg asamaan ñi mu dëkkal nag donc ñi mu dëkkal bëgg nañ ko sopp nañ ko vraiment jox nañ ko jël jox nañ ko gëdd saa yi ñëwee fii mu ngi nii ku ku wàññeeku Pikine Thione Seck ñëw na ku fii wàññeeku Thione Seck ñëw na farata yu nekk dox na ko fii di ñëw di di di di di ràññee di di jaale yaa may dégg parce que fu nekk dugg fay dugg lu mu yëg rek bu ñëwee dina Pikine dina ñëw bu soobee yàlla donc loolu lu waaw. waaw dëgg la jërëjëf Ablaye Nar Seck mhm. foofu nga daaneele sax man falaay ikkatee mhm. li nga ni Thione Seck am na relation bu rafet Pikine mhm. parce que ku ci gaañu. Thione Seck day ñëw man man man mii témoigné naa ko parce que fekk na ma fi ba tàyyi di ñëw di jàll si ba ki bërki moo Njaay bi Doudou sekk gaañoo bi ko doon tëggal Doudou Seck bi ko doon tëggal sabar dafa ñëw ànd ak yow ngeen dem jaale ji waa bil maana ak yeneen ak imaam Assane Mbaye mii yooyu yëpp sama kanam la wax dëgg yàlla ah, Ablaye naan ñu ngi lay gërëm bu baax di la euh, bi nga ñu yombalale suñu liggéey pour ñu ñëw mën a jàkkaarloog yow waxtaan ak yow ñu ngi lay ñaanal nag gudd fan ak wér yan bii la yàlla yan nag euh, yàlla na ko yenu mu oyof tollu ci yow yàlla defal la gudd fan ak wér defal ko sa njaboot defal ko njabootu Thione Seck li nga wax ci Wally Seck aussi dégg nañ ko mm-hmm. te yow xam naa la nit koo xam ne nga ko dëggu nga doo waxantu mm-hmm. lépp euh, loo bëgg ci sa njabootu rakk gii mm-hmm. yàlla na nga fekkee lépp lépp lépp lépp ci barke Seydina mu xamee alayhi wa sallam léegi nag euh, fi la ñuy tàggoog yow di la wax ne Salam Vision ñoo ñëwoon jël si la pour nga wax wax ci sa rakk témoignage témoignage yi rafet na macha allah léegi nag dinañ jéem a dugg ci kër yi xool ba xam. maire maire maire Bintu Mbaye. ak maire dinañ dem ci ñoom léegi. laaj laaj leen lu ñu lu ñu. Mm. asalaamaaleykum euh, tey dañu ñëwoon Pikine euh, doon xool ci jaar-jaaru Thione sekk comme dañu njëkkee nag ci kër Ablaye Nar sekk mi nga xam ni mooy magam ñu bokk ndey ak baay du ñu ñëw ci koñ bi ba dem. te duñu ñëw ci mbay seen seen nag ku ko xam-xam ni Thione Seck rek la ba mu jeex mbay seen ku ko xam-xam ni kër gi mu dëkk presque Thione Seck fi la defee xaleem ba ni mu màggee léegi nag dañu ñëwoon tey ci yow mbay seen di la laaj sa diggante ak Thione ak relation yow amoon ak moom daal loolu la ñu ñëwoon pour laaj la ko. ak ko ak kon bi. yaa yaa ma laaj ci ku ma sawar a wax. Mm-hmm. yaa may laaj ci bu baax mais balaa ma wax ci loolu lépp maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla xaral ko àjjana yi gën a kawe yàlla yóbbu ko ci gën a àjjana yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw man sax man je trouve pas le mot pour ma wax pour l'instant parce que depuis boobu léegi je suis boobu abattu que ne coon sama na diggante relation moom foo ko natt rek passé na ko man lu ma doon tey jii gannaaw yàlla yonent bi moom la coon la parce que ñu bari yaakaar nañu ay mbay wëddeel wala mbay li lépp mais lépp coot la tey jii su ma amee lu may bañ gën a xam sama bopp am lu may jomm am lu may seet am lu ma rus ñu dégg ma ci wala gis ko c'est grâce à dee cent pour cent ko daf ci man daf ma ko wax daf ko jëfe ak man mu nekk nit ku ma moom frontière amu ci mu yaatal ma lool te loolu amee tamit ñoom Ablaye Naar di ñëpp yàquñ dara xam na relation bi ak moom xam ne sama diggante ak moom waaw nit nag mënu la defal loolu lépp ci àdduna way la way woo xam te ne ci la yem li moom la ak boppam ak yëpp coon mhm. lépp la ma defal quoi xarit li ma la mën a wax coon dafa bari bari bari lool pour l'instant nii mhm. tout cas li ma la wax nag dañoo nekk réew moo xam te ne nag dafa neex a dund naqare neex dee boo mhm. fi dund day naqare lool waaye boo dee mu neex mais coon li ñu mujjee ñëpp Sénégal nangu ko noonu la musa mel nit ko ëmbal la nit ko baax la dëgg nag mook alxuraan la yem danga koy bëgg rek gëm ko la meloon du tricher. nit ku baax baax a baax la nit la. coon loo wax ak moom sax boo ko tiimee di ko tagg yenn tagg yi sax mu bënd bët ñoom ñëpp a yem na fay boobu loolu am na ci ñoom. boo ko tiimee di ko tagg sax mu bënd ay loo barke alxuraan. bu la defalee dara nga ñëw di ko gërëm di ko ko dëgg mu jooy mu dama jëlee dama ju tuuru wala xam lan la. mais àdduna mu am solo en yaa ngi ñëw ci ku baax mu gën àdduna lu ko bett lu ma bett mooy sunu borom ak dëggam tey nag boo xoolee dëgg ci jaar-jaaram ak wayam ak waxinam lépp xamoon na ko daa mel ne am na lu ko yàlla may am lépp na ko coon billaahi am na mayu yàlla barka alxuraan karim coon sekk am na nit ku baax a baax la coon sekk di nga gis yàlla rek may wax doomu aadama la boo ni bëggul ko xas mbokkam bëggul mbokkam bëggul ku ku ku ku néewal doole mbokkam bëggul ku néewal doole nit ku diiñ la ku bëgg ay njaboot ku bëgg mbokk barke yonent bi nit ku baax la man suñu kër gi tey jii uh-huh. boo fi duggee da nga kër la rek uh-huh. wax dëgg yàlla kër kese la kër la comme uh-huh. kër yi rek waaye kër gi jur na ay kër te kër yi mu jur lépp gannaaw yàlla ci barkeem la jaar ndaxte am na am ay trois heures état ko sama rak jibee ñoom ñëpp ku ci ne tey ci moom nga jaara pour dem Europe comme kooku mbaax mënu ko sax dëkkandoo ku moo la jël te kenn xamul la nga joxe ak la nga wax ak la nga def mais mu jël la ànd ak yow yóbbu la fa Europe bàyyi la fa ne daanal doole tey jii lu bari tey ñu ngi suñu kër gi am na ay kër yu ñu tabax grâce à Thione Seck la man jóge naa Kilimanjaro ma xam su ma fi day fekk fajar fekk nekk pâtisserie ba yenn heure yi bu sept jot man damay liggéey te di ko am sutura ci boppam xaw lu mu doon def pont banque ba muy dem ci basayaaw bi kenn xamul day dugal day génn mais bi ma rombee ci suba teel gi bi ma rombee mu gis may liggéey dafa tiit ne ma yow wér nga man ko dama xam ñu ñibbi day teel fi benn la rek ma toog fi mu génn xaalis ne ma barke alxuraan lu ma la gënoon bëgg yokk naa ko keroog la jël jaaji benn rakam. xëy suba dimanche woo bari na ma dama bëgg jaaji di ànd ak yow muy liggéey. ba di ma ko yóbbu Itali moom it rakkam. jaaji waaw jaaji benn loolu la def ak bari na ma dama wutal ko nga comme li ngay nii. dama doon jëlal ko marchandise di ànd ak moom muy liggéey. ma defal ko loolu ba ni mu jëlaatee jaaji bi loolu jeex ba jaaji mokkal li ma ko mu jël ko yóbbu Itali. comme nit ku baax la. su ma gisee man ak moom. doom yëpp xam nañ ko ci man jabaram ci ne ma koy jaal boobu léegi. Uh-huh. vraiment sama ñu paañ xam naa ne wéet na ñàkk na ma. Uh-huh. mais njaboot njaboot gi xam ne man moom bu ñu toogee reetaan rek la uh-huh. xarit mu la mën a wax bu baax dem na. jërëjëf Mbaye Sène kàddu yi rek lañuy soxla woon ci yow te yàlla def na ba yombalal nga ñu ko ñu ngi lay sant yow itam di la gërëm ñoo tam ñu ngi lay jaal coon sekk asalaamaaleykum Ndéndickou Kassé ñu ngi lay nuyu di la ziar yàlla boole ñu ngi leen ñaanal bu baax nag. waa tey nag euh, waa Salam Vision dañu ñëwoon ci koñ bi nga xam ne fi la Thione Seck nekkoon. ñu jógee kër ab Ablaye Naar Seck. Mm. ñu jógee ci ab lay Naar dem ci meer Bintu Mbaye dañuy ñëw ci yow maire dëkku. dañu ñëw nag di la nuyu. di la wax ni la ñu ngi lay jaal coon bu baax. naqar bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. waaw Salam nag dañ ñëwoon pour laaj la. sa diggante ak Thione Seck euh, looñ ci mën a tënkal rek ci lu gàtt. ñu bàyyi la nga nuyoo nag. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram Thione moom kenn ku nekk mën nga koo jaar sa bopp. dëgg yàlla te yàlla rek tax ndax Thione dafa nekkan xale bu yaru xale bu am yitte xale bu am yëg ci nit xale bu jullite. waaye nag jullitam googu faraatu ko alaaji seex seex mooy bàyyi alaaji seex seex bu daan wax ay ca leen julli boo toolee fii di ko dégg mu ko baax di ko yërëmoon doomu aadama di ko neexan a nekkal di dëkkandoo ju baax coon daal li ma koy ñaanal seet fa mu jëm yal na ko dàqal fi mu jóge yal na coono yëpp ci àddina yal na ko àllaaxiraam dàqal àddina àddinaam yal na ko sunu borom yàlla yóbbu ca àjjana ya gën a kowe yal na dëkk ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaye nag coon yaayam na koy ngoom dafa baaxam nekk ci koñ bi di mag mu baax di mag mu jullite Nogoy Ngom yal nañu xam seen bu masaana dégg ñaar ñoo xam ne nee nañu duñu wax guddi la koy dox wóor Sëriñ Tuubaa ba kër gi barke Allah ji faal guddi la koy dox wax ko ba mu sedd te kenn du yëg koo ko waxul rek du ko xam xanaa nga xam ko waaye nag laay naar mi itam seet dama koy ñaanal guddi gi fan ak ak wér yàlla yokk xéewalam ci barke yonent bi laay naar dafay nekk nekk nit ku baax nekk nit ku yaatu laay naar fat na ku ne barke allah ji laay naar fat na ku laay naar yaatu na di ko ñime njoboot di ko gëm yàlla ak a gëm yàlla laay naar ku gëm yàlla sunu borom la man li ma leen di koy ñaanal sekk yal na sut coon sekk aw fan sut àllaaji seex sekk aw fan ak ndogongom yaa te di sa barke bi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam coon moom ku baax la woon sekk ndaxitam itam mhm. jàppale na ab naa naata yàlla rek tax. ndax man ngaa bokk ak nit ndey ak baay. te du la yërëm. dëgg la waaye coon dafa yërëmoon Ablaye naa. lu ne jàppale na ko jàppale moo waral lii tey. Mhm. ndax su fekkee ne mel na neneen ci moom. kon ñun ñii di dëkkandoo yi. Mhm. dañuy xam ne moom lu xam rek. nag li xam. te ne moom soo ko waxee. Mhm. sunu borom yàlla def ci jàmm. kon nag mën nañ koo wax. ndax coon dafa doon nit baax jàppale magam. ku jàppalewoon magam la yal na ko yàlla fay ci barke yonent bi Ablaye Naar itam li mu bëgg yal na ko sunu borom yàlla defal ak mboolum bi jullit nii yéen ñii fi ñëw itam maa ngi leen di gërëm di leen san yàlla lafal leen cat mun sa leen ci ndox ak seytaane ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li def noonu lu baax la ndax nit li dëkkandoo lii rek la am ndax bu ngeen bu fekk ne coon dafa mel neneen wala yaay mel neneen ci koñ bi wala laay naan bi mel neneen ci koñ bi kon kenn du génn kenn du wax kon bu laay naan ñëw dama ko naa man du wax waaye nag laay naan day nit ku yaatu nit ko rek yal na ko yàlla defal jàmm yaa si muy sa biir ak jullit yëpp coon daal yal na ko yàlla yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ci barke yonante bi yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yàlla na ko siir naa moom ma teeru sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum mbooloo mi ngi nuyu Vision di yàlla yàlla yàlla guddal fan yi ñëpp barke sallallahu alayhi wa sallam loolu sekk mi gaañu ni yàlla yàlla may ko ba mu dëj ba mu tëdd yàlla na ko gën a fi mu jóge ci barke sallallahu alayhi wa sallam bala maa commencé toog si Ablaye Naar bii ma xarit la yàgg na maa ngi lay wax ne bi coon gaañoo nii. Uh-huh. maa ko njëkk a yëkk biir jigéen man la ñu fëgg suma teel wax ma ko moo sama doom ñu ànd sama doom Alaaji Taar moom mooy manager naa Seck loolu ñu bëri xam nañ ko uh-huh. ku baax uh-huh. di nit ku sawar di nit ku yéwén di sama waay lépp lu mu yëg si man day ñëw fii ñoo koy bokk ba mu jeex na lu mu yëg si moom damay ànd ak moom ba mu jeex loolu moo tax mu wax mu commencé ab lay naa coon Seck ñoo dëkkoon bi ma dëkkoon ak kër gi ku ñëw alaana bi mu jàkkaarloo ñu am fa néeg dëkk mhm. man maa ngi dëkkoon à côté mhm. lay mi gaañu di xaritam mhm. te mu way ko way bu rëy su musaan ñëw fekk ma coon dadaa ñëw sama kër sama nekk xaar ba coon ñëw xam naa li ñu bëri xam mooy coon sekk sax bu ma ko mujjee di wax ak moom dama ko woo téléphone di ko wax ne bay seen dafa feebar mbay seen mooy ki nga xam ne moo ko tekkale woon jabar ca ñoo ànd léegi moom moom la may dikki may ko mooy nijaayam uh-huh. ma woo ko nag ne ko may seen def feebar mu ne ah man de loolu yëgu ma ko na yëg ko nag man man su ma coupé rek dama koy woo uh-huh. dafa coupé rek woo ko moo tax bi ñu nee woo ma ne ma coon sec bi ma Ablaye na ñëw nag coon sec génn naa dem man dama tiit uh-huh. si biir néeg bi ne xamul ma def ma koy ñaanal fi mu fi mu jóge nii yàlla na ko gënal fi mu jëm fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jëm barke sallallahu alayhi wa sallam. nit ku baax la. man benn yoon laa mos dem këram. bu mujj bi mooy ñaareel bi. biñ koy rob. buñ fay jógee ñu ngi wàccee kaam ñu naan Ablaye Naar mu jël bi ñu dem. ñu ñaanal ko yàlla xaw ma dara lu ma si teg ma dul loolu. di sant ñëpp sant ay rakam. ma Penda Seck. Thione Seck ñoom ñëpp xam naa leen. xamoon naa leen bu baax a baax a baax. parce que ñun ñoo bokkoon dëkk fii. ak John bi mi ngi nekk xale bu tuuti. te ñëw fii amul jabar amul dara ba mu dugg. waaw yal na ko yàlla yërëm. yal yàlla xare àjjana. yal na rëccu lépp doon def si àddina. di maa ngi lay remercier. di lay remercier wu mii. di leen jóg lii vraiment. bëggoon naa ko mais ah comme fu ma ko defee. yàlla def na. yéen ngeen ñëw fi sama kër fii. ñu def ko yàlla yàlla guddal seen fay may nañ leen ak leen. jërëjëf Abdou sax Abdou Sakor waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sang bu tedd bi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. tey mère Bintou Mbaye dañu dem dañu ñëw tey fii Pikine. fi nga xam ne fi la Thione Seck euh, juddoo presque yaroo fi. Mhm. màggee fi ay famille nekkoon fi ay waajuram yëpp. Mhm. dañ demoon nag seeti Ablaye Nar Seck mi magam mi nga xam ne mooy taawu famille bi. léegi nag ñun duñu waxtaan ci Thione Seck mu ko te ñëwuñu ci mère Bintou Mbaye. waaw tey dañu ñëwoon mère Bintou Mbaye di la wax di la laaj sa diggante ak Thione Ballago Seck. Mhm. ak seen jaar-jaar ak jaar-jaaram ci koñ bi. dëgg la waaw ñu bàyyi la kàddu gi nga nuyoo. maa ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla. lépp lu ngeen sumba yàlla si yàlla teg la ko. moom ku neex a woy la. ku neex bëgg la baax ci ñun. yaayam ak man xaritu benn bakk la. bu ma waxee sax suma xol day fees bu ma jooy. waaye nag lépp lu yàlla. kon coono maa ngi ciy ñaanal yàlla. kon suñu jëm yàlla ko mu coon mii maa ngi ci ñaanal yàlla ay eh, waay coon yàlla ko yàlla yor ma coon moo baax moo gore coon moo dëkk ngor di noo yoo gore coon kenn gënu baax na si Ablaye Naar baax na si Moussa baax na si Aly Ndiong lépp lu may wax sax dama war a jiital Aly Ndiong doo cee teg keneen ndax yóbbee moom sumbe Aly ma jëkk a def Moussa fekk ko fa ñu waxi ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak ñii dama leen di baag yàlla rek fi mu ne sama xol fees na mënumaa wax waaye yàlla mais xaam ne am na fay tey fay waaye yal na yàlla fay coon sa allah yàlla na ko yàlla teeru teral am na sama doom sama doom di ñaan xalifa mbay fat sekk ko jur ak Modou Maane ak Kumba Jaw dafa xër ci coon ba buñ ko nee coon gaañoon dafa daal portable ba yëpp woon ba tey ña ngi koy jaale bu ñu ko jaale rek yuuxu la ndax bëgg a coon lu tax mu bëgg ko ngir yàlla ak man tey xam na ni coon fi la dëkk fi la yaroo fi la juddoo sero fa moom coon ba muy jànga woy waxtaan bi fii la ko daan gaañe maa ko daan téyel dépassam bu dégg bëccëg saa bu ñëwee bintu bay ay ci joxal ma dépassam boo dem ba ñëw maa dindi dépasse bi joxe bu dem ba ñëw jox ma jox ma paas bu bare bu sakkan kon coon lu ñu wax ci moom rek bàyyi nañu la sa def coon yal na ko yalla yéen yow man xayaat coon yal na ko yàlla defal jàmm yow man xayaat coon lu mu sumba si yow man xayaat yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay Moussa ngi lay gërëm Amadou ñoom famille Seck ñoom ñëpp ngi lay gërëm waa Waalo dañ maa jaala jaal ba ma yaru sama loxo di jooy waa Italie maa jaala jaal ba ma yaru sama loxo di jooy ndax coono li mu bëgg lu mu lu mu sumba ci àddina yàlla ko yàlla fay sa mënumaa wax ndax ndax sama xol dafa fa waaye coon koy baal yàlla rek coon dama koy baal yàlla Ablaye Naar dama koy baal yàlla Nogoy Ngom dama koy baal yàlla ñoom ñëpp ci kër gi la ñu bokk Seck mooy Cheikh mooy Cheikh Seck ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay kër gi nii la ñu defoon amul woon sax xaajal seet barke yonente barke yonente kon yal na ko yàlla yéer barke yonente yal na ko yàlla xare àjjana yàlla barke yonente coon li mu summa yal na si yàlla teg loxoom sax àjjana ci barke nabi Moustapha maa ngi jaale bugaa rek moo yore mbay seen bugaan kenn gënu bugaan kenn gënu jaaga kenn gënu ah doomu doomu yow waali tabaarkalla maa sha Allah ñoom ñëpp daal dañ leen di bàyyi yàlla yal na leen yàlla yéen yal na leen yàlla yéen am nañu bàyyi bu baax nag bàyyi bu baax a baax a baax mooy Ablaye Naar Seck amul benn xol amul benn jafe-jafe ñii mu toll la toll amul benn xaar ma yàlla Ablaye Naar lu mu sumba yàlla si yàlla teg loxo moo baax moo gore tabarakallah ma sha Allah yal na ko mboolem képp ku jóg barke kii nag moo doon meer Bintu Mbaye moo dëkk fii Waalo dend ak ñoom Thione Seck kër moo di maamu Mbaye Sène mhm. Mbaye Sène mi nga xam ne ñëpp xam nañ ni Ndeye Marème ko jur mais jarbaat la ci Thione Seck mhm. Thione jël ko séddoo ko bëgg ko lool mhm. kii nag mooy maire Bintu Mbaye ñu di ko gërëm di ko sant di wax ne fii buñ fi ñëwee rek dañ fi war a waaw salaamaaleykum maire Oumy ñu lay lay nuyu di la ziar. di la ñaanal jàmm. maa ngi leen bu baax a baax. nag waa Salam Vision dañu ñëwoon fii Pikine fi nga xamee ni Thione Seck fi la léppam. Ah, waaw fi ñu ñëwoon nag seet si Ablaye Naar. comme Ablaye Naar mii magam ñu bokk ndey ak baay. moom bi ñu fi ñëwee wax dëgg yàlla bi ñu waxtaanee moom ba pare. Mhm. daf ñu yebal ci yow mi mère Oumy Sall. ni ñëw leen ngeen waxtaan ak mère Oumy laaj ko ci Thione Seck nu mu dëkkee woon ak moom. ak euh, jaar-jaaru Thione Seck fii ci koñ bi. ak jëfam yi fi def ci koñ bi moom lañ la doon laaj si la nuyu nag di la wax nga nuyoo. waa Salam Vision ñoo la seet si. maa ak salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla gudd kon ak wér yéen a ngi loo xam ne lu baax la lu rafet la parce que soon mii ma daanaka judduloowu ma ko waaye daanaka ci man mii la yaroo boobu mu ngi dooru commencé yi muy def bu ñëwee ne ma xam nga dafa dël ndax xaxaxaxa ma mère uni ma ne ko naa mun na ma ñaanal ma doo ma door a dem ka nga teg dara ci sama loxo ma daal di dindi dara teg ci loxo mu dem daal di ñëw indi la cër bu bare daal di may fay ba ba ba ba ba mayaale ba ma ne ko gis nga coon mu ma waa ma ne ko gis nga yàlla dina la yóbbu ba nga xam ne dinañ lay dégg fu foor a foor a foor mu ne ma ah mère ummi waaye bu ma nax waaye ma ne ko billaay wallaahi da nga xaw ma lu dugg ba kum soow dina di nga dégg fu fu dinañ dina dégg kii bu rëy rëy ci yow mu ne ma ah, bu boobaa doo bu boobaa nga kontaan dama ne ko baax na yaa ngi fi maa ngi fi yam nañ ci dee fàtte bu soobee yàlla day di nga am situation bu rëy rëy yi nekk ci yëpp di way yaa leen di yaa leen di féete ca kaw te man maa la ko wax na nga tànn li ma la am mu ne ma bu boobaa de di nga de bu boobaa doo ko dee ko récturé man ka yàlla baax na noonu bi mu demee ba nga xam ne am na kiyam bu njëkk ba xaw ma nu koy tuddeeti kii kiiw or bi disque d'or bi or disque yaa na koy ngoom ñëw fekk ma fii ma toog mu ne ma um ma nekk naa mu a ma ah, sa ñaan ngaa ngi bëgg a nangu de ah. mm-hmm. ma nekk ma am na liste or ma ne ko ah ne ma dama bëgg nag ngeen dem fa. ndokkeeleel ma ko. ma daal di koy ma daal mu ngi dëkk ci kër googu et taw fa xoogul këram mu ngi dëkk ci kër googu ci xaw ma nu mu tudd fa mu dëkk fan la. waaw waaw Sika. ma daal di ànd ak Bintu Mbay moomu. ak kii ar kii moom. ci dëkkoon ci kër gi ci ci dëkkoon ci kër gi nan la tuddati yow. Sadio déedéet du Sadio keneen ki la ki fi luyee woon. moom ñun ñeent daal ñoo àndoon dem. bi ñu demee. ma daal di dem ci bunt ba na ay jàpp ñebe ne ma yow ah, doo dugg ma ma ne ah, lu tax ba du dugg mu na ma ma ne ko ana coon mu ne ma coon dafa dem Cees. waaw tëngéej dafa dem tëngéej ma ne ko yow man yaayam laa mu ne ma ah noonu ku xees ki génn ku xees ka mu ànd daa nekkal. daal di génn daal di may taal yéeg yaayu coon la de. dugal gaaw noonu bi mu naan yaayu coon la coon daal di duraate daal di oto bu ñuul la yore. daal di droite ni ma yee daal di may lëng. ay suma mère bi maa yàggoo ma ne ah xaaw naa dem ndax te mu ne ma xaar ya xam naa daf la xam yow fi ma mère la. daana li ma am sax ñaa yàlla ak ñaanam la. ndax ma daan ñaanal ndax ma mm-hmm. daan ñaanal. Mm-hmm. daal di may lëng ni moom coon de lëng ma ñu dugg ci biir kër gi. Mm-hmm. ñun dugg ma daal di may tegal siis tegal euh, teg nii siis si sama def ni ñu toogee. mu daal may lëng. daal ma xaaxaaxa ume ana pastel ba. ma ne ko pastel baa nga foofu dama daan pastel. di jaay akara. Mhm. ana pastel ba ma ne ko pastel baa nga fay. Mhm. nga ma ah mère bu baax a ngi ne sa ñaan gi gis naa ko bu baax a baax a baax. waaye lu tax doo fi ñëw ma ne ko xam nga man mënu génn. Mhm. bu ma ku ma àndal du ma mën a dem looloo tax mu ne waaye dama bëggoon na nga di fi ñëw nag yow itam nag. ndaxte daanaka sa ñaan gi nangu na de. ma ne ko alhamdulilah loolu da laa bëggoon. noonu baa ngi fekk nit do jabaram ji di léttu am ku koy létt. mu daal di mu moom jabar ji daal di ñox ca dugg ci néeg bi indi ma indi benn mbuus ñeenti mbubb am ca mu ne ma am lii maa leen ko maa maa leen ko joxe ci ci ci waxu cooñ waa terale ci cooñ ma ne ko yow lii bari na di mu ma déedéet bari wul kay ndax yaa ngi kay gërëm ak di ko kii kay mooy sama wàll ci teral gi noonu mu daal di ñëw lëng ba daal di dindi ñaari jox ma ni am seen paas ma ne ko yow kon ñaari junni yi na dama leen doon ndokk ci sa kii di li sa yaay wax rek mu ne ma sama xol dafa sedd parce que yow fu ma tollu dag ma daan ñaana li ma ñaana ñaanal maa koy gis noonu ma daa ma daa di doom ñu ñibbi nag ñu ñibbi si ba bi toogee ba yaa nogay ngam gaañu bi mu ne ma kaay sama yaay kenn du ko laal ku du yow yaa ma koy sangal ba mu set doon na ma bugg sax mu yóbbu tuubaa sax ndax booba dañ ne am ku leen defaral. Uh-huh. pour sàng beeg yooyu. Uh-huh. mu daal ne ah, ah, ah man man ko ah Touba nag moom sore na di mun a ah ma dem xëy na dinaa dinaa gis ku ma ko sàngal ndax sangal nga ma ko sang boo xam nga boo demee Touba dangay dangay dañ lay defaraat. Uh-huh. noonu mu daal ah man de bu doon sama sago. nga ànd ak bi dem tuubaa defaraatal ma sama yaay ba mu baax. parce que daana wax ne bés bu ma fi jógee na ma ummi laal. ma ne ka yàlla baax na. Mhm. waaw def naa ci daal sama yéene. Mhm. sama yéene moom def naa ko ci bu soobee yàlla. Mhm. li nga ci bëgg yëpp di nga ko ci gis. coon ku baax la. coon ku am yitte la. coon ku dul fàtte démb la. dëgg yàlla man maa nekkul nit ku gudd tànk rek. waaye coon ah mayoon na ma cër mayoon na ma teraanga. yëg na ma. fa dëgg yàlla waa kër Ndongo Ngom comme moom moom moom moo ci gënoon a yëg mhm. ma di ko ñaanal yàlla ba mu tëdd yàlla na suuf sedd ci moom yàlla na réccu lu mu doon def ci àddina bi ndax coon dafa dee deeyaale ñëpp mhm. waaw yàlla lañ jëpp ndax mbaaxam am ak yitteem ak ñeme joxe waaw dëgg yàlla loolu da laa xam ci moom waaw jërëjëf mère Oumou Sall kàddu yi moom wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko dañ lay bañ a téye lu yàgg ndax dañu am yeneen eh, nit ñoo xam ni comme ñu mel ni ñëw rek yow rek dañu nekk ci koñ bi te fokk nekk lu laaj la ndaxte coon buñ nee coon dañ naan coon sekk pikin koo wax dañ naan pikin ah, pikin dañ naan sax ndax dëjëm bi pikin la pikin kon nag rafetul ñu ñëw ci koñ bi waxtaan ak suñu mag ji di Ablaye Nar Seck ba pare ñu ñëw di waxtaan ak yow kàddu ñu fi dégg nag wax dëgg yàlla kàddu ñu fi dégg sama ndey bi gis nga daan ñëw bu ñëw masaana ñëw bu guddee bu doxee doxa dox bu xaali guddi ñëw ha ma ne na kana mun ana bolu ba ana bolu dof ba ma ne ko ah, bolu dof ba ana bolu dof ba booba cere rek laa daan togga reer ko defee ma wàcce cere ji jox ko mu ne ha baax na yàlla baax na mhm. ndeysaan si waxam ju neex jooju rek yal na ko yàlla defal jàmm man bu ma ko déggee dafa benn sama yaram dafa gën parce que dafa dafa am yitte ci nit dafa baax am yitte dëgg yàlla ah yàlla fa mu tëdd nag mhm. mbaa xam ñu koy waxal fi yal na ko fekk ba mu ëllëg ci dara jay xam ne salaamaaleykum. jërëjëf mère waa kàddu yi ñu fi jëlee rafetlu nañ ko wax dëgg yàlla. soxna Ndiolé ngi nii toog yow tam soxna Ndiolé ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ni la wax dëgg yàlla dañ lay bàyyi nga sànni ci quelques kàddu ci sa diggante ak Thione Seck ak waa kër gi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sant suñu ñaari pàcc julli ci Seydina bis bi de tiis na lool metti na lool waaye il faut que ñu wax la wax mënul ñàkk ndax doomu aadama moom su fi bàyyi ko amul leen luñ koy war a waxal lu dul ne lépp nit wax itam dëkkandoo yaa ko wax moo gën a wóor ndax dëkkandoo yenay bokk yenn yenay bokk fana te Thione Seck ginnaaw yàlla bi muy xaleel ba ni mu dugg ci wayi ba fi mu toll kër gi nu jàkkaarloo fi la ñu dëkkoon yaayam papaam dëkk nii nga daan répété woy boo xam ne jëkkalu ko woy la ko répété waaye mu xale bu yaru di xale bu baax di xale bu am yar di xale bëgg ñaari waajur kon Seck bu ñu defal woon dara la mu doon defal alaaji Seck Seck ak yaayam na koy moom loolu rek royukaay mu bëggoon waajur waajuram gërëm ko àddina yëpp xam ne gërëm ko te waajuram yooyu nekkoon ay gor lépp lu leen coon seet masa indil ci dund muy ceeb muy diwlin mu manti doon ajaratu na koy ngoom lekk ko bàyyi da koy séddale ci koñ doon nag koo as soo xam ne sii rek guddi mi ngi dox lu baax bëccëg mi ngi dox lu baax li aji ndikku wax dama koy dëgg ñun ñii këru jaboot lañu tey bawal bawal lañu tey jàmm day am ay day am waaye fii lu fekk tàngoon rek na koy ngoom da koy seel ba mu seel te def ko ngir ngistal dafa def ngir yàlla damay wax ne Thione Seck li ñu xam lépp ci moom tay jii yu dus ci nab li na ndaw xajut ci cin la Thione dama koy ñaanal yàlla fu mu tëdd yàlla na ko dàqal fi mu bàyyi ko te bi ñoo ñu faatoo mënoon naa bàyyi lay naan mi di taw kër mhm. waaye da koo jël jàpp ko alaaj sees mhm. def ko bàyyi mhm. di def lépp lu war ci moom lay naar kenn ñàkkul yaa ñàkk billaahi wallaahi lay naa kenn ñàkkul yaa ñàkk si man sama xol dafa fees waaye lay naa li la coon doon defal lépp fa mu la féete woon yàlla na la yàlla féete. amiin amiin amiin fa la féete woon yàlla rek moo la fa mën yàlla na la fa yàlla féete. waaw na ko yàlla may àjjana firdaws dëkk yàlla ñu ne xamul ci moom dara lu yar ak teggin ak lislaam mhm. seen baay moom moo bëggoon lislaam nag këram benn kër dox suñu diggante waaye bu mas ne jóg leen julli ñun ñu tëdd suñu la lañ koy dégg mhm. kon nag yal neen yàlla booyee defal ni ne àjjana firdawsi yow na yal na nga sut coon aw fan amiin lim la daan defal nag yal na yàlla def rek nag doo ñàkk ci dara waaw dem coon gi yàlla nga ci jóge nag jóg ba faaw ci kanam yàlla waaw jërëjëf soxna si waaw jërëjëf jërëjëf wax dëgg yàlla kàddu yi rafetlu nañ ko wax dëgg yàlla fi mu ne xolu ñëpp tooy nañu kàddu yu rafet rek lañ fi lañ fi dégg Ablaye Naar bi ngay wax nag ah lépp daal kenn mënu ko wax sax mais laay naar yàlla rek lañ koy bàyyeel laay naar uf na ñëpp uf na jirim uf na baayo uf na ñëpp daal ci gàttal ñu koy ñaanal laay naar mi taxaw yàlla na sub coon sekk fan te yàlla defal ko barke bu ñëpp xaj ndax xam naa bu amee ñëpp am yàlla na ko yàlla jàppale daal di leen gërëm nag di leen sant uh, yéen waa koñ bi parce que tam coon mënoon naa dëddu àdduna ñu ñëw di leen laaj yéen ñëpp ngeen tëju seen néeg mais dafu leen ko da ngeen génn ànd ak ñun naqar bi Salam Vision nag mi ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal di wax ne daal yàlla na fi dee gëcc. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. ci tool bi laa ko jërëjëf Ablaye Nar Seck.